xalilullahi way jala leen masaana jaay lillahi ay na laa fardi xalilillahi imam cerno ibrahima babullahi ayn ala xutbul warasil jaa'i xalifatil xadimi dunallahi ayn ala xutbul warasil jaa'i xalifatil xadimi dunallahi ayn ala xarmi rijalillahi شيخ شيوخ قائد الإله ويمن ويمن mi ko ñaanal wird def ko sëriñ fu muy jëlee ti fardu ñi ngi ziare bu baax a baax a baax ñi ngi sëñ bi ñi ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp rek di santaat borom Touba di santaat sëriñ Amsatou Mbacké ñu ñëw fii ci Daaru Musti ñi ngi jóge Touba yoon Daaru Rahman ñu ànd ak sëriñ Saliou mbay ak taalibe yëpp rek ñu nag euh, ni ñuy doxee mooy bis bi ah wax dëgg yàlla dañ ko jaayante biñ ko jaayantee wax dëgg yàlla dañuy xool li bis bi di laaj rek ñu jox ko ko li ci des nag su noppee place yi ci des yëpp dañ koy jaayante ngir yàlla jëmmi sëñ bindikee bi ndikee ba jumaa jot dañoo dem penk ba fekk fa gaa yi la des ci kii lépp ñu jaayante ko na leen kaay leen yéeg waaye amut menn koom mun ciy wut wala leneen nun def ba taalibe bi Tuubaa ñëw rek ci bisu borom daaru bi de loolu rek ci lan nekkoon waaw daayira bi mi ngi nekk tu euh, yoon Daaru Rahman mbaarum mbaarum sëñ Fallou nekk euh, daaray Serigne Saliou mbay foofu la nekk waaye nag euh, ñun fi ñuy xidma moo nekk mbaarum sëñ Fallou mu nekk yoon Daaru Rahman Touba yoon Daaru Rahman jumaa jooju liggéey bu ne liggéey bi ku ne xam na ko gaa yëpp ñoo takkatoo àndandoo ànd ak Serigne Saliou mbay maanaam ñu continué ci guddi àjjuma yi loolu moo waral sabab bi fépp fu ñu mën di demit dañuy jaayante ñun suñ biir buñ xësee fay biis bi rek bu desee ay place dañuy jaar jumaa ja maanaam ñu jaayante lépp daal wutuñu ci am koom daal wutuñu ci ñun daal nan fexe ba taalibe sëñ Tuubaa yi ñëw ci liggéey bi sëñ Tuubaa bi rek loolu rek lañ ci loolu rek lañ ci jublu loolu rek looloo tax ñu ñëw ci déglooti leen ma way sëriñ Hamza ca kaw Bamba ko fal may ko ngërëm teg ko ca kaw se Hamza tooy ki Bamba xëy takkal médaay bindum sëriñ bi moo ci sax du daw du daay se Hamza tooy ki Bamba xëy takkal médaay bindum sëriñ bi moo ci sax du daw du daay asadu gayndeg bamba ki jiite tey mbooloo mi fii safoo mbindum sëriñ bi tey asadu gayndeg bamba ki jiite tey mbooloo mi fii safoo mbindum sëriñ bi tey ñi bamba dénk yoon wi tey yaa ngi ci biir ku dib murit noroy ci moom ak laa biir ñi bamba dénk yoon wi tey yaa ngi ci biir ku di murit naroy ci moom ak laa biir Seex Balla Faali yaa ko xëy wuutu bu wér ci jaali baak tarbiya toog yeneen yu wér wuutu nga yit sa baay ba Seex Sohibu kenn mas la gis ku mel ni kii te day na buum wuutu nga yit sa baay ba Seex Sohibu kenn mas la gis ku mel ni kii te day na buum kuy war sëriñ ba ñëw ci moom jàppal te boof Seex Hamza tukk sëriñ bu raw gaynde gu boof sëriñ gu wér gëm sa ku lay sikkal xamul mbir amoo moroom taxawlu bu ñaaw si xam sa tooy ki jàll baax du def lu ñaaw bu ñaaw si baax du def lu ñaaw addi borom Tuubaa jëf mbokk yi ba tey comme niñ leen ko waxee rek ñoo ngi nii nag taxaw ak kenn koo xamante ni yitte kenn dootu ko wanale ci Touba Vision muy Serigne Ahmed Dame Gueye moom Cheikhul Khadim moom Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke moom Serigne Fallou moom Serigne Amsa moom nag mu doon jëmm joo xamante ni fëre ca soow daf fay liggéey liggéey bu am solo boo xamante ni saa su nekk bu guddi yi di ñëw rek rawatina mu doon guddi yoo xamante ni dafay génn Touba rek. sëñ Ahmed Dame di ko coordonné mboole murid yi nga xamante ne ñoo féete fële ca Dakar tey ji nag euh, sëñ bi mu mel ni ngeen amaat beneen taxawaay boo xamante ne murid yi jóge Dakar tey dañ ko amaat ci jëmi liggéey bi nga xamante ni sëriñ bi mi ngi koy amal fii ci Daarul Moxti mu doon njëlbeenu yoon sëñ bi indi ko fii ci Daarul Moxti ana naka ngeen waajalee guddi gi ba tey ji nga xamante ni yéen a ngi nii di door euh, egsi euh, fii ci Daarul Moxti sëñ Dame salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi siyaar ñëpp di la siyaar bu baax sëñ Modou di santaat bu baax sunu yaakaar sunu wasila Serigne Cheikh Mbacke Asadul Hamza di ñaan sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko waaye di ñaanal baax Serigne Seydina Amsatu mbakki waaye di ñaanal bu baax Serigne Abbas Mbacke mi nga xam ne moom lañ ñëw tey ci keppaaram. waaw waajtaay yi moom nañ ko daan waajee rek Serigne Amsatu Mbacke moom ku ko xam xam yitteem jëpp ci. E liggéeyal borom Touba waaye yemut sax ci borom Touba képp waaye ak mboolem taalibe borom Touba yëpp. tey nag mu ñëwaat fii Daaru Mooti ñu jotee ndigal ni ko taalibe yëpp di jotee rek muy e, ànd ak moom ñëw si liggéey bi fii. noone tamit lañ àndawaat takkuwaat comme niñ ko daan defee rek ci e, ndigalam ñun ñëpp ñu ànd takkandoo ngir fas yéene wuy si wooteem bi ndax lu dul wuy si ko amulunu njariñ kon dañuy santaat bu baax mbooloo mi nag nañ ci. Eh, fanweeri nit ak juróom-benn yoo xam ne bàyyi na Dakar ci ñaari oto yu ndaw yoo xam ne jënd nañ ko ci ñaari mini bis di santaat lépp nag ci kattan gu ñu Serigne Cheikh Mbacke kattanal ci baaxu borom Touba waaye di sant mbokk taalibe yi ñu àndal yëpp coono yi metti na lépp rek waaye koo ci wax rek euh, lambub xolam la lay mbégte mooy jëfe ndigalal borom Touba gi nekk ci xolam rek ñu ciy santaat bu baax nag alhamdulilah. macha allah mbokk yi mu doon sëñ Ahmed Dame Gueye euh, bàyyeekoo moom it euh, fële ca Dakar jiite mbokk yi nga xamante ni it ñoom ñoo bàyyeekoo foofu ca Sow waaye mu mel ne beneen tolluwaay da ciy am jëm defal euh, guddi gi Ahmed daam nga sànn ci lenn ci ay kàddu rek ci bokk yi nga xamante ni it tey ñoo ñuy topp ci réew mi ci bitim réew ngir mën a jariñu ci jëmm jooju. waaw maam Thierno daa doon jëmm joo xam ne. borom Touba yàgg naa wax ne Thierno Ibra Fati mooy sama përëgug ndeyjoor mooy sama wetug ndeyjoor ba doy na ci misaal rek euh, ba ko Cheikh Mamadou Lamine Diop fekk Dagana euh, fële ca Gabon daf ne ko boo demee ne Cheikh Anta gërëm naa ko ndax samay taalibe moom njëkk a gëm. Cheikh Lamine Diop nee na maa ngi xalaat ci samam xel naan waaw Thierno Ibra Faty nag nee na borom Touba ne ma Mouhamadou Lamine na Faty day nun nuy moom waaye saay mbokk Cheikh Anta ma ci njëkk gëm day nun nuy moom googee nag lu lu rëy da cee xew ndax jébbalu ci borom Touba soxna Faty Issa Dieye waajuram moo ko njëkk def ci kaw suuf kon loola euh, firnde la waat joo xam ne ku ku yéeme la woon moom maam Thierno Ibra Faty ndax ku feesoon dell la ndax borom Touba duyoon na ko waaye ku amoon njàmbaar la ndax feesoon na dell ci ak njàmbaar ba borom Touba daana wax naan ak fitaku njàmbaar lu ne laa def ci ceerno ba mu des ci loola ndax moom la ëndaalee jamono kon loolee di di di di di di loo xam ne luñ xam la ci moom te di jëmm joo xam ne lu ko waay defal borom Touba nga ko defal ndax borom Touba daana wax ne defal ceerno gën na defal ndax boo nu defalee danaan la fay yàlla fay la rasul fay la waaye ku defal ceerno ceerno dana eh, eh, danaa la fay yàlla fay la rasul fay la te ceerno Ibra Faati am nag fay kon yàlla nu dugal ci fayam goog ci barke borom Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam wa rahmatullah taala barakaatuhu mbokk yi nii rek lañ koy wooyee lépp loo xamante ne ruus na fi rek ñu leen ko kon nees tuuti ak suñu yeneen i élément wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ay way jooy la leen masaana jaay lillahi ay na laa fardi xalilillahi imam cerno ibrahima babullahi عين على خطب الورى سنجاء خليفة الخديم دون الله عين على خطب الورى سنجاء خليفة الخديم دون الله عين على خرم رجال الله شيخ سيوخ قائد الإله way ma ne way mi ko ñaanal wird def ko sëriñ fu may jëlee ti fardu